so bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39. jàpp naa ne waroo maa sant ndax lii dama koo war a def ndax képp ko taxa ni matum àll waroo jaaxaanal sax noppale jamono ji moom waroo ñoo jaaxaanal sunu noppale ndax matum àll baa ngi ci kër gi. yaa ngi may nëbbu de. waana magum dëkk. xam. waa. gis nga yow. buutul di ma lekk loo sama mbañu mbaay. ah. joxal laa la boo la ka fayda te ñàkk fula. sama nijaay xam nga ne Baye Ndiaw li ko dal dafa metti bis bi nga xam ne dafa waroon a maye ay doomam. magam dëkk def ko lii ko mu ko def te yow takk ga wax nañ la ko te demoo woon bay fekke de jamono yee ñëw na fi waaye nag duggul ci bunt bi la yam mu ne woon yow lay seet ma ni ko nekkoo fi muy dem ma woo ko ñetti yoon mu gestu ma ma ni ko bàyyi fekke kenn wax loolu la déglu naa say kàddu bu baax gannaaw bi magum dëkk ñëwee xalaat ma diggante biri ma ak sagar dem naa ci sama rawxaan yépp ñu xool ko waaye li ñu gis mooy sëy boobu bu amee danga nga dee yow ma walla moom miy sagar mu dee Sango Gouma TV, Sango Gouma TV, la scène